amna sax ay cadeau yu ma fa yëkëti woon ma damay askanu Sénégal parce que du suma wante waxoon naa ko suma oto ñeenti waxtu toog suma ak Pape Djibril Fall mën nañ ma seede toog nañ fa ñeenti waxtu xale yi nekk di ak di ñu pat ba ñu ñëwee nañu bugaan ngay dañ ko mandat de dépôt dañu def point de presse bañ fa pour def point de presse ñom ñu taxaw fofu nek fi kenn du fi wax lolu yeb ci ay ciokas la ak ay jaxlé ak tit mo Nous lu may wax di rappeler parce que tay sen stratégie def sen kem pour que suñu liste bi di Sam sa cadeau ñu battre a battre campagne à défaut ñu neutraliser mm-hmm. motax lu ñu ci ñun duñu ko may mm-hmm. parce que ñun lu wax nañ ko mooy askan wi xuloo xeex saagante taxuñu jóg sénégalais yi am nañ maturité politique pour mën a tànne pour mën a tànn ak xàmmee ak ràññee moo tax ñuy sàkku ci mbokk yi particulièrement le peuple de Dakar dama dernière élection présidentielle sénégalais yi ci seen majorité 54 dafa que nous soyons parce que dañu amone yakar que nous luñu len digone day séparation des pouvoirs euh, bonne gouvernance la gestion des deniers publics euh, respect des droits humains dans ci gattal dafa nous nous ak djubanti du mhm. ba meeting d'ouverture yéen ñep gis ngeen ci internet ay ba buntu yàq foofu ay tableau yàq fa ay oto taxaw suma buntu kër di fa wootee fitna maa ngi jégalu nag ci kàddu yi ku ma yëpp rek danga fekk may nalaw walla dama walla wala wala wala ku ma yëpp rek da ma fekkul foofu rek dama ne man duma ma cokkaas kenn du ma cokkaas kenn dinaa wax lu ma nar wax ci yarak ak teggin wante am na lu ma dul nangu nous avons une stratégie. Nous avons suis la stratégie de la lâcheté. Moi, je à 4 h du matin. Nous avons un siège pour avoir une sécurité. Parce que pour nous, nous avons une guerre. Nous avons un siège, pour nous réunir. Nous avons un siège pour nous réunir. Pour nous avons un siège pour nous caravane. Nous avons un siège pour Nous avons une caravane. Nous avons un siège pour nous caravane. Nous avons un siège pour Nous Nous avons un siège pour Nous Nous avons une conférence de presse. Nous avons une journaliste. Nous avons une conférence de presse. Donc, vous pouvez le comprendre aisément. pour ñun guerre amul pour ñun lu am mooy xëccoo te xëccoo fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi wante nag xëccoo buy dem ba di ñuroo leneen kooku ñaawlu rekk dañ ko mën a def moo tax ngeen même ma wax ak askanu Dakar seen yaakaar tas na yéen fajal seen bopp set situation du ñun parce que ñoom heure bu may xajeen nii dañu tiit Mais comme nous sommes experts en manipulation, nous avons ce que nous avons fait